ponk la ñu fas yéene waxtaanee seen magazine bi bu ci njëkk njëkk moo jëm ci li nga xamante mooy championnat d'Afrique yi amoon fële ca maanaam Cameroun jëm ci wàllum athlétisme waroon ñu fii ki nga xamante ne moo di seen président ñaateelu ñaareelu waxtaan bi nag moo jëm ci wàllum li nga xamante ne moo di course hippique ndax ji jii si dimanche bi amoon na fële ca Thiès li nga xamante moo di drapeau premier ministre bi Ousmane Sonko daw nañ ko pare am nañ fi tamit seen benn représentant ñetteelu ponk bi nag moo nar a dem ci warum làmb làmb la war a waxtaanee ndaxte yàggul dara moo jël trophée bi ñu maanaam euh, tournoi ñu amal fii nii mu di Birch West Ligne Sénégal moo ko mujjee gàddu ki nga xamante ne moo di sunu gan di général Malika xëy na dinañ dab ci li nga xamante moo di ci waxtaan bi waaye seen magazine bi nag du ma ci wéet benn yoon ndaxte maa ngi ak sama binôme sama sama poulain Alaaji Garab maa ngi leen nuyu mboolem téléspectateur u 7TV li ma ko faral di ko waxee rek tous les de sport maa leen di bëggee bu baax a baax di nuyu tam suñuy gan merci beaucoup El Hadj Grégoire comme ni mu ko waxee rek dañuy présenter ñi nga xamante ñoo suñu ay gañ ki ñu si njëkk a présenté moo di le président Bara Thiam vice président bu fédération sénégalaise d' président ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay delloo nuyoo Babou donc euh, di la jaajëfal ci invitation bi ñu defal tey di nuyu aussi sa collègue euh, Grégoire di nuyu aussi euh, sama naataango bi toog nii jóge ci course hippique vraiment di la jaajëfal aussi ci émission bi. merci beaucoup président ku mu dendal nag moo di soxna Khadija Thiombane di assistante commission finance bu CNG des courses hippiques Khadija ñu ngi leen nuyu. bonsoir Babou di leen nuyu di leen ziar bu baax di nuyu Grégoire ak monsieur Thiam ma fekk di kontaan trop ci invitation merci beaucoup soxna Khadija léegi nag dañ koy tambal d' abord li nga xamante moo jëm ci wàllum football ay brève la ndaxte tey jii ñu ngi noo amal Grégoire li nga xamante moo jëm ci final Coupe du Sénégal jëm ci wàllum jigéen ñi jàppal nag ne baabu kon bokk le ballon a bien évidemment roulé ci li nga xamante moom moo jëm ci pelouse la donc une finale entre dames boo xam ne jàppal ne jàppoo ñoom ñoo ko doon disputé ñu jàpp ne loole ak aigle yu Médina loon muy une finale boo xam ne c'était assez disputé contre les aigles de la Médina 15 ans après nag leur dernier succès ci bile compétition ñoom dellu siwaat nañ rek gàddu raaya bi tey dibéer juróom-ñaari fan ci weeru sulet loolee ñeel rek coupe du Sénégal ci wàllu jigéen ñi ñaari bal nag ci dara moom mooy score bi nga xam ne boobu moom la ñu seetlu ci boobu rek match merci beaucoup Alaaji Grégoire ñu jëm ni ñu wax ni li nga xamante ne moo jëm ci coupe du final coupe du Sénégal jëm ci wàllum góor ñi dañ ko amal semaine bi di ñëw ci diggante Ferry du foot ak ñi nga xamante ñoo di Mbour euh, PC mu war a am fële ca stade maître Abdoulaye Wade mu ñu ci noppee nag Grégoire euh, semaine bi passée amal nañ li nga xamante ne moo di tirage jëm ci wàllum coupe d' waaw ba léegi jëm na ci wàllu ko football ñeel nag tey li nga xam moom moo nekk la reconquête du titre ce sera bien sûr pour cette équipe nationale de la Côte d'Ivoire mu xam moom moo nekk récent vainqueur bi Sénégal engagé bu baax a baax tam ci biir tournoi ñu amalee ko woon fak fële nga xam moom moo nekkoon ca Johannesburg le Sénégal qui sera donc dans le groupe L en compagnie nag euh, Babou ci nga xamante ñoom ñooy euh, le Burkina Faso un adversaire a connu en 2021 au Cameroun mais également Sénégal moom mooy la poule L bu ñu ci jógee nag mënees nañu gis tam que dans les autres groupes c'est assez équilibré puisque tey euh, ñi nga xamante bokk nañ ci favori moom mooy le Maroc ak la Tunisie entre autres ñoom ñëpp bénéficier nañ ci ay poule yoo xamante ni tey mënees nañu jàpp ni loolee bokk na ci loo xam ne daal mën nañu seetlu ne ñoom ñëpp tous ces favoris là ils sont bien servis dans ce tirage au sort. suñu yeneen i euh, maanaam émission dimanche bi di ñëw daañu ko gën a waxtaan waxtaan yi nga xamante moo jëm ci wàllum poulu Sénégal ak yeneen poul yi buñ ci noppee nag Grégoire dañuy changé li nga xamante ne moo di euh, maanaam ballon jël li nga xamante moo di ballon orange ndaxte ñu ngi doon joué tey li nga xamante moo di basket fële ci stade Marius Ndiaye jëm ci bi voilà loolu nag jëm ci wàllug play off yi mu nekkoon nag une rencontre boo xamante ne nii baabu jàppal nag ni la ville de Dakar moom moo ci nekkoon euh, doon ci jannoo ak développe mu nekkoon une rencontre assez disputée foofu nag waaye il n'y a pas eu photo finish ci li nga xamante nag moom moo nekkoon le parquet de Marius Ndiaye puisque euh, ñoom ñi nga xam moom mooy waa ville de Dakar dañu rek enchaîné avec un score assez fleuve moom ne ni moom mooy seen suprématie mais aussi euh, seen constance ci championnat bañ ko gisee boobaak léegi kon ñoom ñoom ñoo jàll comme mel ni équipe bi nga xamante ne moo di Ville Dakar mooy joué li nga xamante ne moo di champion championnat bu Sénégal mu war ci daje nag dëkk euh, équipe bi nga xamante ne moo di Bopp ak Duc war a ñu joué actuellement nii xam naa laataa émission bi di jeex daa ngeen am résultat bi xool ndax ban équipe mooy rejoindre AS Ville Dakar jëm ci wàllum li nga xamante ne moo di Coupe du Sénégal mais li nga xamante ne moo jëm ci góor ñi la Grégoire mu mel ni dañ ko dàq ba ay bés yi di li ko waral du leneen nag lu dul asamaan si ubbi ay vanam tey jii ñu jàpp ne nawet bi tàmbali na Marius Ndiaye un problème boo xam ne yàgg nañ di ko souligner tey jii mel ni moom moo fa dellu si nawet bi taw bu njëkk bi waral tey jii nag ñu jàpp ne match bi nga xam moom moo ñeeloon tey GIA ak AS Ville de Dakar loolee dañu ko mujjee reporter à une date maanaam ba jëmmi jamono ndaxte nag li ko waral moom mooy mënuñu amal basket ci parquet bi. jafe-jafe ndox mi nga xam ne jot na fa am ak problème mu toiture bi nga xam ne jotoon nañu ko souligner. effectivement ñaari match yëpp la ah ak beneen match nga xamante ne moo di euh, euh, moo di AS Douanes ndaxte démb joué nañ joué nañ mu nekkoon match yu vraiment match yu serré AS Ville de Dakar ak équipe bi nga xamante ne moo di GA ndaxte démb 60 la 60 la à 59 benn poñ rek moo doxoon seen diggante ñu wax li nga xamante moo di match retour bi nar na metti lool lool seen diggante beneen match bi nag moo naroon moo naroon dox ci diggante ñoom tamit joué nañ démb 3 points moo dox seen diggante ndaxte équipe bi nga xamante moo di AS Douanes moo dóor di 55 à 52 Aladji Grégoire bu ñu ci maanaam soobu li nga xamante moo di premier sujet bu ñu waxoon sànq mu jëm ci wàllum basket mu mel ni Grégoire ki nga xamante ne moo di Mamadou Kanté def na benn jàngat ci championnat yi nga xamante ne moo amoon fële ca Cameroun émotion bien heureuse Babou loolu tout ça nekk loo xamante ne tey jii mën nañ ko tamit boole ci galerie athlétisme bu Sénégal nekk ci guddi yu neex gannaaw bi nga xam ne ni am nañu ay ndam ci championnat d'Afrique d'athlétisme bu Douala ak Cheikh Tidiane Diouf bi nga xam ne ni am na ndam ci 400 mètres plat Louis François Mendy ci 110 mètres et ak salisar ci triple saut ak ñett médaille d'or yi mu ngi mel ni def nañ jéego yu mucc ayib. waaye ci ginnaaw ndam yooyu mu am ay jafe-jafe yu ci laxasu bu ñu sukkandikoo ci Luis François Mendy mi nga xam ne ni gannaaw bu mu amee ab ndam mu ñaawlu prime yi nga xam ne ni moom lañ leen di jox ministre bi jox leen fukki junni fédération bi tegal leen ci fanweeri junni moo ne ñoo ngi yaakaar atletu Sénégal am taxawaay bu jéggi dayoom ci Jeux olympiques Paris 2024 bi nga xam ne ni ñoo ngi koy waajal waaye prime bi nga xam ne ni moom lañ leen di jox wuute na lool ak bu football bu réewum Sénégal ci noonee la ñu jàpp ni war nañu leen gën a yokk doole rawatina ci waxtu yi nga xam ne ni ñoo ngay waajal jeu olympique bi nga xam ne ni léegi mu jot waaye lu am ba des mooy athlètes yi yàgg nañoo ñaawlu lu nu mel Louis François Mendy dafa rek fésal li nga xam ne ni yàgg nañ koo jooytu ñoom mu di kumba am ndey ak kumba amul ndey bi nga xam ne ni moom la ñu nemmeeku ci tàggatu yaram ci biir Sénégal diggante athlétisme ak yeneen i sport yu ci mel ni football. merci beaucoup Mamadou Kanté si jàngat bi nga xamante ne defal nañu ko si euh, tournoi bi nga amoon fële ca Cameroun jëm ci wàllum euh, maanaam athlétisme président d' abord dañu njëkk waxtaan li nga xamante moo di performance su suñu gaynde yi ndaxte vraiment préparation bi métti woon na mais n' empêche gars yi dem nañu représenter dignement le Sénégal. effectivement Babou comme ni nga ko waxee donc suñu athlètes yi donc jongante bi ñu doon def Cameroun. Euh, ñibbisi nañ ak ay performance yu baax parce que tey euh, koo ne champion d'Afrique nga euh, loolu performance bu baax la parce que lu toll ci cinquante quatre pays euh, Sénégal euh, sur certaines épreuves jël raw gàddu gi maanaam am médaille d'or bi defu ko benn yoon defu ko ñaari yoon def ko ñetti yoon te boo xoolee ci histoire wu athlétisme depuis defu ñu sacre bu mel noonu naam bi ñu demee championnat d' Afrique yi passé vingt deuxième championnat yi nga xam ne Île Maurice la amoon euh, Sénégal ñibbisi woon na ak ñetti médaille mais benn médaille d'or rek lañ amoon Sangoné Kandji moo ko amoon donc yeneen ñaar ñi Salissar bii tey am médaille d'or bi au niveau de Douala moom médaille d' argent la amoon ak Amath fay aussi bi nga xam ne euh, moom aussi médaille d' argent la amoon mhm. boo xoolee Amath fay sax ci tournoi bi passé euh, amoon na médaille de bronze mais dafa amoon litige mhm. ba Sénégal dugal sax Euh, demande de réclamation. mais malheureusement euh, validé wuñu ko. mais cela n'empêche que athlète bu xarañ la te bu ñu am yaakaar la je pense que. Euh, performance yi ñuy def fii nii euh, Asaba kii comment dirais je pas Asaba Douala. Douala performance yu baax la. Mhm. donc satisfaction pratiquement générale lañ ci am. Mhm. parce que dafay yëkkati niveau. Mhm. Sénégal di wane ne tey le Sénégal est en train de s'imposer sur le plan africain. di wane xar kanam boo xam ne dañ koy gën a respecté dañ koy gën a jox cër. parce que bu njëkk euh, bon ci at yi passé doon na jafe pratiquement ñiy dem championnat d'Afrique je pense que médaille yu mujj yi ñu fi am à de vingt or mais à part Amisen bi mu ji bi mu arrêté ba léegi Île Maurice rek la ñu waat di am médaille médaille médaille d'or ak ak di yéeg sur le podium. Mhm. maintenant Sénégal nag dafa indiwaat beneen xar kanam. di wane ne liggéey bañ doon commencé di def depuis 2017. donc avec l'arrivée du nouveau régime dirigé par le colonel Sarawali mhm. ak le directeur technique Pape Serigne Diène ñëw teg benn plan programme boo xam ne dañ ne woon buñ ci toppee je pense mhm. que émission sax ñëw naa fii saa yu ñu laajee athlétisme ça touche le fond effectivement leen may leen ñu dañuy liggéey. Mhm. actuellement liggéey bi. mi ngi mhm. commencé porter ses fruits. Mhm. naam eggaguñ ci ci objectif yi ñu fixé. dañuy soog a démarrer. et je pense que tey su ñu amee accompagnement bi ci war et ça je tiens à le dire parce que sport moom munoo ko def sans moyen. et aujourd'hui beaucoup de sport au Sénégal ce n'est pas le propre de l'athlétisme. Euh, am nañ problème mu moyen. athlétisme donc je pense que suñ ñu accompagner comme il te faut comme il le faut financer suñu programme yi nga xam ne déposé nañ ko. Mhm. Sénégal mën naa am sax résultat yu ëpp yi mu amee yi mu wane fii Douala. mais président ñu ngi wax ne euh, yaa ngi wax ne vraiment gars yi def nañ ay performances c'est saluer. Mhm. mais ñu ngi wax ne am na les meilleurs d'Afrique. Mhm. Mm-hmm. Euh, par exemple muy les Mauritaniens ak ñi nga xamante ne les Mauritaniens ak ñi nga mm-hmm. xamante ne les Algériens mm-hmm. ñi nga xamante ne sont fi nga xamante ne tamit moo di euh, que loolu tamit nekkul gënul yombal li nga xamante ne moo di les médailles des des des Sénégalais ah nañ ñëw <laughs> ñëw xam nga. Euh, parce que ñoom dañoo am dañoo dañoo Jeux olympiques mooy Jeux olympiques. effectivement ñun aussi am nañ qualifié Jeux olympiques bu dem li ngay fàtte mooy. l'athlétisme mondial c'est l'athlétisme africain mhm. loolu le dire maintenant les meilleurs du monde pratiquement boo jëlee Afrique mënoo leen ci génne mhm. mënoo leen ci génne recordu 400 mètres bi kan moo ko yor c'est un euh, sud-africain nga jël certaines épreuves mooy le 800 mètres le 1500 ah, euh, les, les, les 5000 ah, les 10 000 sont les Africains. tey nga dem jëlal Côte d'Ivoire xoolal euh, euh, les sprinteuses. 100 mètres talon 100 donc munoo citer tey cinq athlètes du monde te boole woo ko si. donc tey l'athlétisme africain occupe une place importante dans l'athlétisme mondial. mais genre compétition yi mel ne dina doon baax les meilleurs d'Afrique ñu daje si benn benn compétition. mais les meilleurs peut-être euh, quelques ñoo manqué. quelques ñoo manqué mais 54 pays su ci ñaari pays wàññeekoo. loolu du baromètre. boo xam ne mën nañ ci basé woo pour wax ne. les meilleurs ñëwul. y avait les meilleurs ñoom talu ñu ngi fa war ak ñeneen ak ñeneen maintenant ñooñu euh, dëkk boo gis day am spécialité. boo xoolee ay marok ay Algérie ñoom ils sont plus vers le demi-fond et le fond yooyu la ñuy ñëw di buuxante gars yi di leen sonal. nga jël Kenya même chose ils sont sur les 5000 sur les 10 000. même bu nekkee sax léegi ñu ngi commencé travailler. parce que gis naa championnat dafay passé ñuy aligné des sprinteurs te du nag nekkul doon seen vocation. Mhm, mhm. donc noonu la mel Sénégal aussi. Mhm. dafa am réputation boo xoolee euh, Ami Mbacké lu mu doon daw 400. 400 mètres Jaba lu mu doon daw 400. Cheikh Tidiane Diouf bii lu mu gagné. 400 donc 400 bokk na ci fi ñu ëpp chance. parce que dëkk bu nekk ak configuration dëkk bu nekk ak euh, identité am. cela pas dire que duñu. dañuy du ñu travailler ci yeneen épreuve yi si dañuy travailler mais dëkk bu ne da nga war a identifier yow fi nga xam ne fa nga ëpp chance nga mettre ko en avant tout en nag faisant un ratissage très large pour yóbbaale ñëpp mais il faut un ciblage parce que on ne peut pas être performant partout mhm. pour cela il faut des moyens peut-être loolu boo demee ci côté américain yi mhm. américain yi yóbbu leen fond ak demi-fond il pêche mhm. temps yi rek ci ginnaaw nii lañ commencé di jël seeni athlètes leen yóbbu Kenya ñi fay def stage daw ak pour ñuy mën a am ay athlètes yu xaw a tane sax. Mhm. ci demi bi ak fond mhm. dire que c' d' accord Alors, moi je vais aller beaucoup plus en profondeur parce que euh, je me bu ñu demee tey ba ñoom les les bëgg tey jël euh, modèle boobu noonu di ko adopté pour dire que dañu bëgg xëy jëlee l' athlétisme au niveau de l' Afrique pour tey ñëw jël si ñun alors vous parlez de moyens d' accompagnement on va vers des joutes justement. Euh, ak le nombre d'athlètes yi nga xam ne tey jii ñun war nañ ko mën a jël yóbbu ko est-ce que euh, tey au niveau accompagnement fu vous yi nga xam ne na féete ci ci niveau fédération bi vous pensez que tey vous êtes suffisamment outillé pour que tey la Sénégal soit encore au top par rapport tey ak li nga xam ne fa lañ jëm. waaw vraiment tontu si fa fa lañ jëm euh, dinaa tontu ci sa première question bi. parce que pratiquement ñaari question ñoo ci génn c'est vrai euh, les Européens ak les Américains tey bu ñu sañoon. Mm-hmm. athlétisme mondial ñoo koy ñoo koy ñoo koy dominé. Mm-hmm. bu ñu sañoon loolu nag c' est de l'histoire ça ne date pas d' aujourd'hui ça ne date pas d'aujourd'hui bien avant l' indépendance ba léegi boo xoolee les jeux euh, de de l' amitié. Mm-hmm. koy organiser fii en 60 lañ ko 59 60 lañ ko organiser notamment avril 60 lañ ko organiser au Madagascar. Mm-hmm. mais les gens ne voulaient pas l' njëkk nañ ko jàpp pour yóbbu ko Algérie tubaab yi bañ. ñu jàppaat ko pour yóbbu ko Égypte tubaab yi bañ. Mhm. finalement ce n'est qu'en 1960 lañ ko jàpp yóbbu ko Madagascar mu jógee Madagascar dem Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire organisé ko en 61 Sénégal organisé ko en 63. ci la commencé changer en 65 ñu tuddee ko les Jeux africains pour vous dire que ne tey. su doon seen sago Afrique du ñu dominer peut-être le le sprint wala le fond wala le demi-fond. Mhm. l'Afrique est un grand continent mhm. qui est en train de s'imposer de se faire sur dans beaucoup de domaines maintenant loolu aussi Sénégal daf cee bokk am ci xarañ donc ni ñu amee objectif tey nekk au devant de la scène nekk aussi dans l'échiquier du sport mondial noonu la ko dëkku africain yu bëri ma mhm. ne maintenant c'est pas une question de pays mhm. une question de travail soo liggéeyee rek parce que leen fayeeku les normes sont là les textes sont là kenn mënu la ci Euh, génnee beneen bi si topp pour sa deuxième question bi par rapport à la préparation aujourd'hui on va vers les Jeux olympiques de Paris ñi di ko préparer nag bu yàgg parce que on avait un programme bu ñuy wax génération 2024 c'était pour préparer les Jeux de Paris mu doon ay xale yoo xam ne amuñu woon Louis François mi mel nii ci la bokk Sali Sarr ci la bokk ak ñeneen ak ñeneen amuñu woon âge def Jeux olympiques mais dañ leen doon préparer. Mhm. parce que les Jeux olympiques ça se prépare minimum en huit ans. pour que au moins nga bokk ci finaliste yi parce que waxu jël médaille moom beneen affaire la mais ne serait-ce que qualifier pour les Jeux olympiques ba pare dem finale. Mhm. loolu c'est d'autres défis plusieurs défis d'ailleurs maintenant Sénégal depuis un certain temps white card lay demee. white card white card lay demee. Mhm. depuis la qualification de Diaba depuis la qualification de Ami Mbacké ak ñeneen ak ñeneen tey Sénégal imposé wu am trois qualifiés pour le Jeux olympiques de Paris mënoon na ko ëpp tey quelqu'un comme amat fay la qualification était dans ses cordes mais malheureusement problème d'organisation problème de compétition yu ñuy organiser avant après yooyu mhm. jàpp na ko ba kii mais chance bi mu am moom ak ñeneen ñi mooy seen tranche d'âge dafa tuuti. Mhm. ils sont entre vingt trois vingt quatre vingt cinq ans. d'accord ce qui veut dire que am nañ devant eux. Mhm. beaucoup de marge de manœuvre pour Jeux olympiques yeneen yi di ñëw deux mille vingt huit mhm. euh, aux États-Unis merci beaucoup euh, soxna Khadija gis nga performance yi nga xamante ne Sénégalais def nañ ko fële ca euh, maanaam Douala jëm ci wàllu athlétisme presque trois médailles d'or et des d'argent yow ban ban commentaire ngay am ci li nga xamante ne Sénégalais def nañ ko fële ca Douala. kontaan ci ñoom ak euh, di leen encourager parce que ñëpp xam nañ ne sport yombul comme ni ko monsieur Thiam sa ça demande énormément de moyens et je pense que bu ci accompagnement amee rek comme ni ko waree rek day dañu mm-hmm. voilà sportif rek oui mais c'est normal <laughs> c'est normal ça demande énormément de moyens en tout cas mm -hmm. et quand les moyens suivent en général mhm. mhm. gis ne bi malgré esam yéen ñëwagul sax délégation bi ñëwagul mhm. mais ñu ñu ngi maanaam coow coowal prime daf ci topp mu mel ni euh, man nekk mais est-ce que tamit doon euh, ki nga xamante mooy Louis François moo ko génn dénoncé li ko jox comme ak li nga xamante ne moom lañ ko jox euh, mu nekk loo xamante ne sénégalais yu bari bi ñu ko jotee wax dëgg yàlla ñaawlu nañ ko trop trop mais est ce que selon vous est ce que moom Louis François l'athlète est ce que waroon bàyyi ñi nga xamante ne ñoo nekk si gam comme yenn ay kilifam ñoom génn wax wax ñi nga xamante ne ñoo les autorités les sénégalais waaw yooyu c'est selon xam nga loolu muy jooy mm-hmm. ñun yàgg nañ ko wax man toog naa ci plateau yu bari dénoncé ko expliqué joxe ay de solution athlète bii tey kenn daaw ko dégg mu wax. Mhm. tey mu génn wax parce que xëy na foofu la toll ak jaloore bi mu def. Mhm. parce que qualifié à un an des JO. Mhm. dem championnat d'Afrique confirmé. donc jël médaille d'or bi donc dafa extérioriser li nekk ci moom te loolu c'est sportif maanaam képp kuy yëngatu ci domaine sport xam nga ne la réaction et spontanée. soo defee benn sacre bu mag euh, sooy réagir. Euh, doo ko tey mais li mu wax nii c'est bien pensé et il a raison et je suis d'avis que pour man war na ko wax du du lu bees autorités yi ñoo la ko gën a xam euh, le monde sportif ñoo la ko gën a xam ñëpp xam nañ ne fii kumba am ndey moo fi am ak kumba amul ndey parce que dafa am lu ñu bokk benn la base mooy nous sommes tous des Sénégalais mm-hmm. ça c'est un deuxièmement nous sommes des sportifs que l'on soit au basket tennis euh, euh course hippique ak feneen ak feneen. Mhm. nous sommes des sportifs. beneen bi ci topp nous sommes régis par un même ministère bi ci topp mooy nous appliquons les mêmes textes pourquoi mu am infine ay différence de traitement mhm. warul am sénégalais sénégalais la champion d'Afrique champion d'Afrique la mhm. warul am maintenant s'il y a une différence de traitement mais il faut qu'on essaie de voir là où se trouve le problème. mais président mënoo bokkaale. Mhm. li nga xamante moo di football ak li nga xamante moo di athlétisme. ci ban mais mais xool boo gis nga football li muy généré ak par rapport li nga xamante moo di athlétisme li muy généré. waaw li yow football li muy généré. fan lay dugg ak nga bon bëgguma sax ñu discuter ci football parce que <laughs> damay génn sama émission te man athlétisme fi indi mais mën naa la ci wax lu bari. soo gisee ma wax loolu y a un arrêté l'arrêté 793 du 15 septembre du 15 septembre 2005 bu Youssou Ndiaye moom moo réglementé prime yi ak organisation des sports sport yëpp discipline bii moo jiitu bie stop bie stop nii lañ classé Jeux olympiques ku dem lii ku def lii ainsi de suite xam nga lu mu wax euh, boo qualifié Jeux olympiques boo qualifié euh, compétition internationale dañ lay fay per par jour mhm. dix mille francs par jour soo defee 5 jours tu as 50 000 soo defee 10 jours tu as 100 000. Mhm. loolu mooy per bi ça n'a avec la prime. Mhm. te per diem bi. fédération moo ko joxe. déedéet état li ma lay wax ni état la yoonu fédération nekku si. mais dañoo euh, euh, benn benn benn somme. non mais xam nga tey jox ko ki nga xamante euh, xam nga loolu jotul ak dara état. Mhm. bi athlète yi di dem état dafa génne benn kañoon ne 5 jours la ñuy def délégation bi mu compter leen 5 jours ku nekk 10 000. daal di koy jox délégué ministériel bi. parce que ministère day day chaque fois bu compétition amee délégué loolu mënoo ci condamner ministère xam nga lu tax. mais dafa tuuti. waaw léegi 10 000 francs ngay dem dépendre Sénégal. beneen dëkk ñooy jox 10 moom laay wax bu problème amee comme prime. bu problème amee da ngay xool source bi. da ngay xool source bi xam nga lu tax loolu texte bi ministère mënut a wàcc texte boobu mënu ko wàcc nous dans un pays de droit bu ñëwee loolu rek la mën a appliquer parce daf ko fee fekk